Bamba Xaadimu Rasuul génne ko réew mi jël ko yóbbu ko Gabon mu am fa lu ëpp juróom-ñaar ci at yéen kaay gi ba tey nee na ginnaaw exil boobe nag fukki at yi nga xam ne moo ci topp la ñu daal di créé la ñu fondé dëkk bi nga xam ne mooy Touba xam ne jamono ji moo nekk deuxième ville du Sénégal ba tey ci biir journal bi ci xëlim ak Assane Samb nee na colon yi ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon seeni complice sénégalais mboolem loo xam ne mënoon nañu ko ngir nag faagaagal Cheikh Amadou Bamba def nañu ko waaye nag moom jëmuñu tedd ci lépp loo xam ne ma ngi ko doon doxee yàlla sunu borom la sa jiital di ñaane di sàkku ay ci moom ba tey ci biir journal bi mu xëy di ñu xibaar naan ñu jamono ji nag dëkk bu sell bi di Touba moo nekk sele bu yoon yéen kaay gi ne na waajtaayu màggalu Touba gi am na nag ñenn ñoo xam ne seen bamba ma ngi cay mancé mooy ñi nga xam ne ñoo chauffeur yi ak ñi nga xam ne ñoo yor seeni i oto di ko luye ñooñu nag jamono ji maanaam seeni mbir dox na lool yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na njiitu réew mi di président Macky Sall ni ki démb daan ne jël xalimaama nag altine ji nga xam ne moo topp ci màggal gi maanaam férié la yéen kaay gi di réew mi nee na nag xamante ni daal ñooy way politique yi yi ñoom ñëpp nag ñoo ngi jaaba jonge maanaam ci Touba coalition Yewwi Askan Wi ñoom Ousmane Sonko ñoo nga won Touba coalition ñoom PDS ñoom tim ñoo nga woon Touba yéen a kaay gi na na Ousmane Sonko bi ko gaa yi gisee ci buntu kër sëriñ bi maanaam la gaa yëpp dagg Ousmane Sonko ji mel tul tulleeg màlle yéen a kaay gi nee na sëriñ Muntaxa daan nay jaajëfal bu baax a baax coalition Yewwi Askan Wi wax na leen na leen jamono ji nag maa leen amee lu bor ndax li nga xam ne ñaanoon naa leen ko maanaam def ngeen ko ni ma ko bëggee yéen a kaay gi di laas xëy duñu xibaar naan ñu république bu Sénégal daan nay tënku dugg ci bëgg-bëgg Touba journal bi nee na mboolem politiciens yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ku leen di wër dem leen seeti leen Touba yéene kaay gi di Vox Populi ñu xëy fekk fa Ousmane Sonko nee na kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk ci bu ñu leen di déglu mën nañoo bañ a def ay erreur Ousmane Sonko nee na nag fii ci Touba man du fi ñëw nag di fi wax wàllum politique yéene kaay gi de Le Quotidien coalition ñoom Ablaye Wade bi niki démb ca Touba daan nañu yëkkati kàddu nee nag ñoom li nga xam ne moom la ñu sàkku maanaam ñu dini malaanu kiiraaye député yi nga xam ne tudd nañ leen ci lu jëm ci wàllum trafic ak passeport diplomatique yéen kaay gi de Les Échos Pape Diop def ay révélation nee na nag ñaari député kese la gars yi ñu koy tudd waaye nag ëpp nañu ko Pape Diop nee am na xam ne dañuy dem takk kenn wutal ko passeport diplomatique juróom benn weer ñu daal di koy fase ba moom Pape Diop nee na nag su ko jare war nañu si ubbi enquête boo xam ne 2000 lañ koy commencé yéen kaay gi réew mi quotidien xëy na def dossier bu am solo ci màggalu Tuuba gi wax na nag ci daayira Hizbut Tarqiyyah ak ni nga xam ne moom la soso Rewmi Quotidien ci biir dossier bi wax na ci Touba ci kanam ak taxawaay bi nga xam ne moom la amee wax na tamit ci volet sanitaire bi nga xam ne moom la ñu teg Touba yéen a kaay gi di enquête nee na ñi nga xam ne ñooy économiste yi nee na ñu nag màggalu Touba gi mën naa bokk ci li relancer économie réewum Sénégal docteur Khadim Bamba Diagne ne na li nga xam ne moom la ñuy consommer ci tuba ak lu jëm ci wàllum investissement bi loole nag bokk na ci li nga xam ne dina may loxo bu baax baax sunu koomu réew yéen a kaay gi de la Tribune xëy dañu xibaar naan ñu liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekkoon ci wari maanaam prestataire yi ñoom nag mer nañu ba fut daan nañuy porte Kabiru Mbodj ba pare nag di ko sàkku ci moom lu toll si ñaari milliards ndax ñoom prestataires yi ñoom daal nee nañu seen xaalis nag moo nekk ci ay comptoir yi ba léegi nii ñoom ay at ngi nii mënuñu see jota yéen a kaay gi di réew mi ko di jee ñu koy fekk fa Fatoumata Ndiaye borom Fouta Tampi moom nag nee na daal dafa am loo xam ne dafa mbëgg nag mu leer ci bopp askanu Sénégal nee na moom du opposante nee na moom du noonub Macky Sall loolu nag Fatoumata Ndiaye nee na dafa bëgg askanu Sénégal xam ko nee na nag moom ci biir APR la bokk ci biir Benno Bokk Yaakaar nee na Moussa Diop moom Fatou nee na nag dafa amoon lu ko naqari daala maanaam di xeexal Fuuta nag waaye nag ba mu gisee na la mu doon xeex daala jamono ji Macky Sall ma ngi koy saafara moo tax nag xeex bépp daal daan na koy teg ci suufa yéen a kaay gi di Dakar Times nee na nag retombé yi maanaam lii ruusee ci gaz bi ak pétrole bi ci réewum Sénégal waa Banque mondiale nee na daal ci fanweeri at yi Sénégal dina ci am lu toll ci douze mille quatre cent cinquante milliards yéen a kaay gi de la ñu xëy fekk fa maître Assane Dioma Ndiaye nee na contrôle yi nga xam ne moom la ñuy def Bougane Gueye Dany groupe des médias loole nag lu mën a ñàkk la te nag lii dafay firndeel ne ñun nag sunu démocratie bi daal sooxee na lool coalition gëm sa bopp ñoom nag nee nañu daal acharnement politique la ñuy def ci kaw Bougane Gueye Dany ndax lii nga xamante ni moom la def daal weesu na nag redressement fiscal yéen a kaay gi di source ñi nga xam ne nag ñooy waa impôt ñoom daal dañoo jëlub dogal nag dem directement ci compte Sen TV maanaam nag daal di fay manque seen xaalis yéen a kaay gi de la solo xëy dañu xibaar